maanaam ñaar fukk ak ñeenti place la daal di ñàkk ci boobu boobule classement moo ne de ci kàddoom ni ki démb njiitu réew mi Macky Sall li muy wane mooy kon Sénégal ci boppam am na fi liberté de la presse réew mi quotidien di ci jàngatee ni dafa mel ni li Macky Sall di gis ak li xew dëgg méngawul benn yoon dëgg la presse mooy quatrième pouvoir naka lañ koy méngalee waaye ci Sénégal quatre appui la def critique yéene kay moo ni xamle laas di ko dëggal mu xam ne ni kon presse moom ci Sénégal ci pression dëgg lay dund jamono ji li ko waral suñu naatango taskatu xibaar yi lu ñuy dund ni ay xeetu fitna xoxatal ba ci sax yenn xeetu agression yi loolu yëpp boo ko jàngatee day wone ni liberté de la presse bi ñuy wax dëgg daanaka am na lu koy gàllankoor li gàllankoor liggéeyub taskatu xibaar yi bokk na ci tamit réseaux sociaux yi nga xamante ne ni ki démb njiitu réew mi àdduna ca Sud Quotidien moo xam ne ni kon moom Macky Sall ñaawlu na bu baax li ñuy jëfandikoo kon lii di réseaux sociaux yi ak média yi seen wàllu bopp nu ñu bëree ci Sénégal mu jàpp ni kon loole ci boppam anarchi lay indi anarchie ci boppam la Macky Sall bëggatul ci mairie bu Ndakaaru ndax njiitu réew mi li mu jàpp ni kon maire bu yees bi di Barthélémy Dias mu ngi koy def ci wàllu recrutement loole tegu ko ci yoon Vox Populi di fësal kàddug njiitu réew mi Macky Sall mi nga xamante ne dafa mel ni kuy dànkaafu kii di Barthélémy Dias tribune yéene kaay ne ko waxal wax ji ndax Macky Sall ci boppam mbëbëtam jamono ji mooy fexe ba jëlee jàppale Barthélémy Diaz ci bopp mairie bu Ndakaaru bis bi di ko ci feelu ne Macky Barthélémy Diaz la teggat jamono ji ba foncé ci ay mbiram Macky Sall ak ay manœuvre am ndax mën na ko jural dara ci wàllu politique Direct News moo ci samp tey ab laaj ne kon xeetu débouchage yi nga xamante ne mu ngi koy def ci maire opposition bi teg ci ñu muy dalal ci audience ndax loolu yëpp mën na ko jural dara ci élection législative yu ñu dëgmal mu mel ni suñu naataango ci njort lool ndax dañuy sukkandiku ci li nga xamante rek nga xamante ne ba ñu duggee ci nguur gi rek la ñu daal di yàqal seen bopp Idrissa Seck mu ñu jàpp ni yàqu na ba noppi ci wàllu politique Dakar Times di ñu xam ne ni kon li mu wone ci korite gi mooy benn xeetu patriotisme bi nga xamante ne way politique yi war nañ koo def ci doxalinom bu yees waaye tamit kàddu yi nga xamante ne mu ngi koy yëkkati li am ba am ngir yëkkatiyaat Idrissa Seck ci élection législative yi loole mën na nekk lu jafe l'observateur def ci ab jàngat ci li nga xamante ne moom lañ ko sas ci élection yi ñu dëgmal di ci jàngatee ni moom Idrissa Seck ci guuta dëgg danger la nekk ki nekk ci danger dëgg mooy kër gi di la poste ndaxte xeetub scandale bu nekk la ñu fay nemmeeku bu ci mujj l'observateur di ñu xam ne ni kon lu toll ci ay téeméeri chèque ci ay bor fanweer jàpp ñeenti téeméeri million ci suñu koppar moom lañu tàmbale kon rawale foofee ci kër ga moo tax juge ñaareelu cabinet bi ci ndakaaru daadi na ci ubbi ab réquisition nguurub Sénégal ubbi gafagam lu toll ci juróom benn téeméeri milliards ak lu te moom la ñu fas yéene dugal ngir xeex li nga xamante ne kon moo jëm ci yokkute njëg yi énergie bi ci Sénégal koppar googe niñ ko fas yéene doxale lépp mu ngi ci biir yenekaay bi di la Soleil ci biir yéenekaay Libération ñu ngi nettaliyaat faatub Marème War ca Tiwaawan Pël moom soxna si tolloon ci juróom benn fukki at dañu ko takkoon laataakoon ñuy daal di yóbbu bakkanam moom soxna War cosaano ca Medina Gunaas suñu naataango yi di xam ne ni kon bokkoon na sax ci ñu loru ci inondation yi te ñu daal di leen yóbbu ca Tiwaawan Pël moo tax ba mbir yi xewee section de recherche bu Ndakaaru ci boppam daal dina ciy jóg ngir jóg nag ci faat bakkan yu bëri ñu nemeeku jamono ji ci Sénégal Thiès daal ci sumb ab pétition ngir sàkku ci kilifa yi ñu daal di delluwaat peine ci Sénégal doomu sénégalais bi Sadio Mané waneeti boppam démb ci demi-finale Ligue des champions attaquant suñu gayndee nag démb daanaka moo bootaat Liverpool dugal seen ñetteelu but ci kanamu Villarreal bu Boulaye Dia bokk kon ci ñuy tax ba Liverpool daal di qualifié ci finale Ligue des champions moo tax l'observateur di ci jàngatee ni Sadio Mané ci boppam li mu wane démb gën naa tax ba mu jege Ballon atum ren ji sunu làmb sekk na waxtaan tey ak manager bu moduloo